جتاي فتوى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
jataayu fatwa fii ci rajo leeral fm 104.6 dañ leen koy dégtal àllarba ju nekk juróom-ñeenti waxtu ci ngoon muy 21h ñu ci ànd ak boroom xam-xam bu ñu ràññee ci àdduna sépp di docteur Mouhammad Ahmad Lo xafidahullah bur rusa laaj sa diine borom bi tabaraka wa taala ne
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون jataayu fatwa ak docteur Mouhammad Ahmad Lo di tontu ci seeni laaj yu jëm ci seen wàllu diine nooy def ba yónnee sa laaj ñu tontu ko àllarba ju ne juróom-ñeenti waxtu ci ngoon wooteel ci numéro bii 77 396 42 42 77 396 42 42 da nga dégg message bi.
asalaamaaleykum yegg si nga ci boîte bi ñu jëgleel fatawa ci leeral fm mën ngaa bàyyi sa laaj te déglu tontu bi àllarba bu nekk bu juróom-ñeenti waxtu jotee si guddi gannaaw xibaaru juróom-ñeenti waxtu yi en direct fii ci leeral fm jataayu fatwa dinañ leen ko bamtulal ajjuma june fukki waxtu ci ngoon maanaam 22 heures.
وعندي عمر يكفيني ده انا شر Vous écoutez les RAL FM sur le 104.6 en FM.
alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokk auditeurs yi ak fi nga ñu mën di dégloo ci kaw suuf muy biir Sénégal wala biir Afrique wala Europe wala Amérique wala Asie ñu ñëwaat ak yéen seen émission alfatawa bi ngeen di ànd ak cheikhana ak docteur Mouhammad Ahmad Lo xafidahullah wa raa tey nag euh, mu génn euh, ngir wuyu benn jataayu xam-xam boo xam ni ministère Euh, bi saytu wàllu diine ca Mauritanie ñoo fa organiser benn ndaje bu mag boo xam ni boroom xam-xam yi ci àdduna bi lañ ci woo yàlla def moom it ñu woowaale ko fii ci Sénégal mu nekk fa nii kon tey suñ fatawa noonu lañ koy defee euh, ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu barkeel ko euh, leeral encore tontu yi bi iznillahi subhaanahu wa taala kon cheikhana ñu ngi lay nuyu ca foofu ca Mauritanie di nuyu boroom xam-xam yi jóge ci àdduna bi yëpp nekk foofa di la jox kàddu incha allah rabbi pour ibbi fatawa bi incha allah إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mboolem mbokk yi ñuy déglu noo ngi dellusiwaat ci sunu jataay bii nu bokk muy jataayu alfatawa di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu defal ñu ci tawfiq Cheikh Abdallah noonu nga ko waxee noo ngi fii ci Nouakchott ci ndaje mi nga xam ne conférence internationale la boo xam ne ministère des affaires islamiques bu Mauritanie moo ko wootee boroom xam-xam yu bari ci àdduna bi ñëw wisi ko ñu teewe ko ñun itam kon foofu la ñuy jokkoo ak yow tey ci fatawa di am yaakaar ci ne ci wàllu technique bi lu mën a nekk lay nekk di jaan sunu borom tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ko waa ndaje mi defal ko itam mboolem déglukat yi leeral fm ak mboolemu jullit kon bisimilah ñu déglu lenn ci li nga xam ne mooy li jàppandi ci question yi fi daje tey bisimilah jazakum allahu xayran cheikhana wa baraka allahu fiikum kii mi ngi tudd Xuseyn Fay di wootee Mbuur nee na yàlla xam na ni bëgg na la te yàlla tax mu am ñaari laaj benn bi nee na su fekkee ni docteur yi dem nañ ba amatuñu yaakaar ci malade bi ñu tiim te sonn na ñu pikiir ko pour mu noppalu benn yoon mu ni ndax loolu dinañ ci am bàkkaar ak ndax diya dina leen ci fekk bu nu war a joxe
ñaareelu laaj ba mu ni yenn bàyyi ma yi nga xam ni fas yeeg mbaam yi nga xam ni ci yenn parc yi dañ leen di jël ñuy dund ñu sànni ko gaynde yeeg yenn kii yiy fàdde ñu leen di daggata di leen lekk fekk ñu ngi dund ñu ni ndax loolu bàkkaar am na ci wala ndax dagan na ci sharia wala déet alhamdulilah docteur yi léeg-léeg ñuy faj nit ba àgg ci ne moom naagu nañ ci mu dundati waaye fekk na ma nga yore aw métit wu métte métti question boobu danañ ko faral di laaj ba danay àgg sax ci béréb bi jàngu yi nga xam ne ñooy yi gën a xóot ci wàllu gëstu ci fiq mu li ñu tudde almajaama al fiqhiya ñi di ko ca jàngat waaye daal li nga xam ne moom la ci boroom xam-xam yi saxal te noonu itam fii ci alfatawa moom lan jàpp ne mooy li dëgër moo di bakkanub doomu aadama ji li feek mi ngi dund ki ko sàkkoon jëleegu ko fi daal jaaduwul ci nit mu di ko fi jële jëlee ko fi rey bakkan lay doon boo xam ne dee mën na caa war ndax bakkanum doomu aadama nag dafa diis yeneen sax mën na caa war nag kon du jaadu mukk bakkan boobee ñi koy faagaagal ngir ne dañ koo bëgg a fegal aw metit mu kay am nañ ñoom ay moyens yoo xam ne mën nañ koo jëfandikoo yoo xam ne suñ ko ko defalee mën naa wàññi aw metitam mën na koo calmer bu baax a baax a baax ba metit wa wàññi ko waaye nag ñu bàyyi ko fa ba keru muy wuy ji boroomam ci kàttanu sunu borom tabaraka wa taala kon loola moom ki feebar ci boppam sëñut ne faagaagal leen sama bakkan docteur yi sañu ñu jëlal seen bopp décision boobu ay bokkam sañu ñu koo jël kenn sañu koo jël ki ko bindoon moom moo sañ a jekki ba war ko faa jële rek jële ko fa luñ mën nag ci wàllu faj ko ak mettitam woowee ñu woyofalal ko ko luñ ca def la nekk lu baax la ama jël mala rek nag daal koy sànni ci biir gaynde yaag bukki yaag ña demee ñoom ñu daal koy song noonu fekk ma ngay dund ñu daal di koy xëccoo lekk ko loola moom lu ñaaw a ñaaw la aw reyin wu ñaaw la woo xam ne shariatul islam du ko defan du ko dagal rafet lu mukk nañ ko rey rey goo xam ne gu noppale la ndax rey itam dafa am anam koo xam ne noonu la gën a noppalee noonu la ko lislaam kër a santaane moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam di wax ne inna allaha katabal ihsaana ala kulli shay lu nit kiy def lu nekk rek am na nuñ koy defee mu rafet mu ne su kenn ci yéen di rendi sax na rafetal rendi ba nu mu koy defee mu ne paaka ba muy rendee na ñaw maanaam lam ci jublu mooy rey gën a gaaw kon jël mala ba teg ko ci biti fetal ko sax mu daanu deega daal di gaaw lool nga door a jël yàpp woo sànni ko ña ngi ko bëgg a sànni ñu lekk ko loola moo gën a dëppoo ak teggee ni lislaam ci fab lay dund sànni ko noona ñi di ko rey ci seen façon yi bopp léeg-léeg ñu ne ah gaynde kat moom da dut lekk loo xam ne moom rëbbalu ko boppam waaye loolu mooy gaynde yi nekk ci àll ba waaye gaynde yi nga xam ne xas nañ leen tëj ba seen jikko soppiku ñooñu boo leen sànnee aw yàpp itam dañ koy lekk kon nañ leen rayal yàpp wa sànni leen ko te bañ leen a sànni mala bay dund wallahu taala alam baarakallahu fiikum cheikhana kii nee na musta dégg ci saxaaba yi kun ci tudde jibril te suñ jamono ji dafay gis ñu bari ñu leen di tudde jibril mu ni ndax dina dagan kon ab jullit ñu koy tudde jibril wala déet alhamdulilah tudde doom jibril wala mikail ay tur la yoo xam ne li ëpp ci boroom xam-xam yi nee nañ turi yonent yi ak turi malaayika yi mënees na leen a tudde doom am na nag ñu ko sib nag leen ci boroom xam-xam yi ku mel ne al imam malik dafay sib tudde doom malaaka ala kulli xaal ñi nga xam ne it dañoo wax ne dañoo dagan dañ koo tënk ci kaw ne na fekk mu doon góor na fekk mu doon doom ju góor waaye bul jël doom ju jigéen nga di ko tudde malaaka ndax loolu dafay nuroog lay yéefar ya waxoon di wax ne malaayika yi doomi yàlla yi jigéen lañ kon yow nga bàyyi fa doom yu jigéen yi bañ leen a tudde turu malaaka te fekk doom yu góor yi soo bëggee tudde jibril wala mi ak mikaayil nga tudde leen ko loola du doon loo xam ne luy wàññi dara la waaye nag tànn tur yi nga xam ne kenn juuyoowu ca jàpp naa ne loola mooy la gën ndax kenn nattable ne muhammad wala ahmad wala mustapha wala muntaqa wala mujtaba wala abdurahman wala abdullahi tur yu mel noona kenn nattabliwut na ay tur yu sell la tur yu baax la te it ak jooyoo amul ci boroom xam-xam yi ndax dagan na wala daganut wallahu taala alam baarakallahu fiikum cheikhana wa jazakum allahu xayran kii Ousmane la tudd di woote mu ni dafay laaj li ñu tuddee fetu Saint-Valentin nga xam ne fetu mbëggeel la bu jóge ci tubaab yi ak lañ ca jublu mu ni ndax loolu dina dagan ci ab jullit mu koy fete wala déet ñaareelu laajam nag mu ni dafay gis ñoo xam ni dañuy askanoo sunna waaye dañuy buubal seeni tubay seeni yére mu wàcc seeni dojor mu ni ndax loolu dagan na wala déet ak luñ leen di laaye biir alhamdulilah feet yi nga xam ne doomi aadama yi dañ koy feetoo te cosaanoo wut ci lislaam mu doon yoo xam ne boo ko gëstoo sax léeg-léeg mu doon loo xam ne dafay fénqoo ak seen diine di fénqoo ak seen aada di fénqoo ak seen cosaan yooyu feet lislaam du ko saxal du ko nangu daganul ci ab jullit mu di ko def boobu yi mu laaj ca la bokk yeneen yu baree baree bare itam ca lañu bokk kon jullit bi li ñu tuddee feet goo xam ne gu ñuy feetoo la di ko jël muy def at mu nekk mu dellu siwaat su fekkee ne dafa dugg ci wàllu diine kooka moom du daga ndax bi daal lay daal di tudd su fekkee saxut ci sharia bu fekkee ne dafa dugg nag ci luy taarixal dara te loola doon taarixu jàmbur yoo xam ne soo ko seetloo day dellu ci diineem moom su boobaa loola tam du daga ndax roy ñu dul jullit ci lu doon seen diine la su fekkee ay aadaa ki cosaan la yoo xam ne dafa askanoo ñeneen ñu dul jullit yee it su boobaa du jaadu ci jullit yi ñoom ñuy jël aaday jàmbur ak cosaani jàmbur di ko jël kon daal ci gàttal feet yooyu moom daganul jullit bi di ko jëfandikoo beneen bi mu laaj nag mu wax ne ñuy dund sunna ba noppi di buubal seen yére kooku daa waroon a wax rek ne ay jullit yoo xam ne dañuy buubal seen yére ndax day daal di bëgg a mel ne ki ki déclaré ne man damay dund sunna moom rek la loola jaadu ci moom waaye képp ku di jullit yonent bi alayhi salaatu wasalaam li mu la jàngal mooy jullit bu góor ay yéreem du muur ay dojaram loolu téere yi fiq yépp moom lañ jàngale sooy ba nga dem ci risaala sooy ba nga dem ci beneen téere bu mu mën a doon da nga fa fekk ne jullit bu góor du buubal ay yéreem dañ ko ko tere na bañ a muur ay dojaram mooy ñaari wowoow yi nga xam ne ñoo séq ndëggu li maanaam ñoo ko tiim lu lam sol lum wàcc-wàcc bu muur ñaar yooyu ci ñaari tànkam yi su ko muurut nag la mu sol dagan na waaye su ko xasee muur nag la mu sol moom day daal di dugg ci lu xaraam loolu bépp jullit la wallahu taala alam baarakallahu fiikum cheikhana jazakum allahu xayran kii nee na dafa am soxna soo xam ni yaayam ak yaayam moom ñoo bokk benn ndey soxna si yaayam ak yaayam moom ku góor kii di laaj laaj bi ñoo bokk benn ndey mu ni ndax dina dagan doomu soxna su jigéen soosu nga xam ne seen ñaari yaay ñoo bokk benn ndey ndax dina dagan mu takk doomam maanaam ab jarbaatam xëy na lay doon wala doomu sëram bi nga xam ni yaayam ak yaayu kooka ñoo bokk benn ndey ndax dina dagan mu takk ko alhamdulilah xam naa Cheikh Abdallah laajiin wi xaw naa gudd te dëng mooy rek ñaari nit ñoo xam ne seeni ndey bokk ndey ak baay ndax kenn ki mën naa takk doom yi moroom ja ok mën na koo takk ndax ñaari nit ñoo xam ne seeni ndey bokk ndey ak baay ñoom ñaar ci seen bopp mën nañoo takkante su fekkee ñoom ñaar mën nañoo takkante nag la jóge ci ñoom loola taxoon ñuy wax ndax loola moo gën a sori maanaam ki seen ñaari ndey bokk ndey ak baay kooku moo la gën a jege doomam su fekkee moom mi la gën a jege mën nga koo takk kon doomam taxut ñuy wax wallahu taala alam waffaqakum allahu ya cheikhana wa baraka allahu fikum kii mi ngi tuddoo Omar si ñaan di woote Saint-Louis nee na kii imam bi da ko jiit jiitoo benn rakka mu ñëw dabe waaye imam bi bi muy am ñeenteelu rakkaam fekk moom muy am ñetteelu rakkaam imam bi dafa juum jug ba dolli beneen rakka beneen rakka boobu mooy moom mu def ko ñeenteelu rakkam moom nee na su imam bi pare ba sëlmal bay defaat baada salaam ndax moom da koy def wala du ko def parce que ñeenti rakka la julli alhamdulilah juróomi rakka moom warta am ci ak julli maanaam imaam bu jógoon ba taxaw daa war a dellusiwaat dafa war a dellusiwaat su fekkee ne sàbbaal nañ ko su demoon ba taxaw itam te nekk juróomi lu rakka day dellusiwaat toog taay sëlmal sël def def ab sujootam su ko defee moom mu jóg àggale ak julleem waaye du continuer mukk di julli ab rakka nit ñi nekk ci gannaawam di julli ay rakka loola imaam waru koo def te su ko defoon dëgër ca bopp sax te mu wóor nit ñi ne ci juróomeelu rakka la dem nit ña dañoo war a toog bàyyi ko moom mu dem ba dellusiwaat waaye waruñu koo topp ca loola loola moo tax foofu duñ ko wax mukk ne ko rakka boobee mu taxaw mën ngaa nekk ci gannaawam di ko ca roy ndax rakka boobee bokkut ci julli ga ma ne su ko caa roy boo ko ca royoon it boo noppee da nga julliwaat sab rakka ndax ka ngay roy daanaka mokk julliwut ñooy am wallahu taala alam waffaqakum allahu ya cheikhana kii nee na ci rañaanu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko woon ñu ko ñii ñooy waa àjjana ñii ñooy waa safara mu ni su fekkee ne loolu am na ndax kon yàlla dafa am ñum atte ba pare dugal leen àjjana ak safara wala atte ñëwagul wala daal nu nuy déggee mbir moomu alhamdulilah atte de bu dee atte bi yowmal qiyaam boobu ñëwagul waaye nag képp ku faatu ku nekk rek fa nga nekk ca barsax yaa ngi nekk ci màndarga muy wone ne kii ndax kuy taxe ëllëg la wala kii ku jëm ci ab safaan la ëllëg yonent bi alayhi salaatu wasalaam nettali na ko ci xadis bu gudd boo xam ne nit ki bu duggee bàmmeelam rek ñay laaj bu ñuy laaj daanaka day daal di tàmbalee xam moom mii fan la jëm ëllëg ndax mbugalum bàmmeel dafa am waaye xéewalu bàmmeel itam dafa am nit dana nekk ci mbugal wala yaasu billah ci biir bàmmeel bay ñaan boroomam di ko wax ne yàlla yàlla na nga taxawal yowmal qiyaam mu gaaw ndax yaakaar na ne mbugal ma muy daj ci biir bàmmeel ba amul beneen mbugal mu ko gën a metti waaye nit dana nekk ci biir bàmmeel itam nekk ci ay xéewal yoo xam ne day wax ci day ñaan boroomam naan ko bul taxawal yowmal qiyaam ndax yaakaar na ne xéewal gii mu nekk buñ ko fi jëlee yóbbu ko àjjana it du mën a amaat xéewal bu tol noona te fekk nga xéewalug àjjana dara melu ni comme ni nga xam ne mbugalum sawara dara melu ni kon yonente bi alayhi salaatu wasalaam ña mu romb ñu nekk ci seeni xéewal mooy seen xéewali barsax ñam rombit ñu nekk ci ab safaan ñu di leen bugal bugal yooyee du caage ni ñuñ àtte ba noppi lañ waaye ñu nekk ci seen bugalum barsax yàlla nu borom bi tabaraka wa taala defal xéewal te musal na ci mbugal naam waffaqakum allahu ya cheikhana wa baraka allahu fikum kii nee na buy ñaan soxlaam borom bi subhanahu wa taala est ce que dina dagan mu dugal ci ñaan bi ni yàlla boo nangoo sama ñaan bii dinaa woor juróomi fan wala dinaa def nangam wala dinaa def nangam ndax loolu dagan na ci ñaan alhamdulilah ñaan ba noppi boole ko ak nisar ne suñ nangoo ñaan gi danaa woor wala danaa rey dara wala danaa sarxe nangam su fekkee ne def na ko day su lam ñaan amee lam waxoon dana ko war ndax nisar la boo xam ne daf koy war waaye nag soppuñu ko soppuñu ko soppuñu ngay mel ne kuy weccenteeg sa borom naan ko boo ma defal lii ma defal la lii moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam mu jàjj boo àgg ci sax ne inna nadar laa yati bi xëyr maanaam na nidar ci boppam du indi aw yiw maanaam nga xam ne da ngay tënk say mbir ci sa digganteeg sa borom naan ko boo ma defal lii ma defal la lii yow daal xam nga ni lii def ko tuyaaba la def ko loolu mooy la gën a mat wooral ba noppee nga ñaan booy dog ndax xam nga ne ku def ak jaamu yàlla ba noppi tàllal say loxo ñaan sa ñaan mën naa am yaakaar julli sa ñaari rakka ba noppi tàllal say loxo ñaan sàkk sarax jox ku ko aajowoo mu lekk nga wéet fii sa béréb tàllal say loxo ñaan kooku la ñu tudde ak tawassul bil amali saalih loola moom la boroom xam-xam yu baax ya di soññee shariatul islam loola la jàngale waaye nag ne damay tàllal sama loxo ñaan ba noppi ne yàlla boo ma defalee danaa danaa julli ñaari rakka wala danaa woor bis wala danaa rey dara sarxe ko lu mel noonu soppuñu ko waaye nag soo ko waxee bu fekkee ne la nga doon ñaan am na dalay war la nga ne woon danaa ko def ma def nga def ko wallahu taala aalam baarakallahu fikum cheikhana kii dafay laaj mu ni lan mooy xadisul qudsi ak ndax dafa bokk ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wala déet alhamdulilah alxadisu alqudsi mooy xadis boo xam ne borom bi tabaraka wa taala moo ko wax yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam nga xam ne ca sunu borom tabaraka wa taala la jóge boo ko dee jàng da ngay gis ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama fi ma yarwihi an rabbihi yonent bi nee na ci li mu jëlee ci boroomam kon wax la joo xam ne ci sunu borom tabaraka wa taala la jóge kon wax yu la dañ cay jëlee ay atte comme ni ñuy jëlee ay atte ci alquran ak ni ñuy jëlee ay atte ci xadiisu yoo xam ne waxi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la wallahu taala alam wafaqakum allahu yaa cheikhana soxna si dafay woote nee na xam naa ki mi ki mi ki mi wax càmmiñam la mu ni càmmiñam bii daal ku xër la ci yar ay doomam yu jigéen ci sunna waaye nee na soxnaam loolu moom dara da ko caa intéressé wut ba tax na day gàllankoor sax ci yar gi muy yar xale yi ci loolu mu ni léegi càmmiñam dafa jaaxle nu muy def ndax day jël doom ya jox ñaneen ñu ndax ñu sori seen yaay wala day fase seen yaay wala nu muy def loolu daal lay laaj ak laay biir alhamdulilah mbokk moom yi di laaj lu jëm ci soxnaam si nga xam ne xëy na moom ku góor ki daa bëgg a yar ay doomam ci alquran ak sunna muy njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te yàlla nattoo ko soxna soo xam ne àndul ak moom ca loola ñu xamal ko ne ko fase ko doonut saafara soo xam ne suñuy tàmbalee la doonut sax saafara su gën li gën kay mooy moom ci boppam jéem koo muñal jéem koo laaye biir ndaxte lee sunu borom tabaraka wa taala man koo jubbanti moom itam mu jaar ci siraatul mustaqim su loola amul woon it jéem a muñ ndaxte nit ki yàgg naa baax wala mu bëgg bëgg a baax te fekk ka nekk ca suufam te nekk soxna doonut koo xam ne ku baax la wala muy jigéen joo xam ne ju baax la wala mu bëgg a baax te fekk kay kilifaam ci wàllu borom kër doonut koo xam ne ku yàlla baaxal la waaye lu ci mën a xew jéem a jaar yow ci saraatul mustaqim te jéem koo laaya biir sa kem kàttan jaamu yàlla ci moom ci wet googa na ko nit ñu baax ña daan defee ak na ko yonent ya daan defe sax ndax xam nga ne soxna nuux ak soxna luut ni nu ko sunu borom tabaraka wa taala nettale daf ni kaanata taxta abdayni min ibadina saalixayni fa xaanatahuma dañoo nekkoon ñaar ñoo xam ne ñu ngi ci suufi ay yonent doon yonent yu baax a baax waaye teewul ñaari soxna yooyu dëkke di leen lor ak di leen wor teewul ñu muñal leen donte nag muñ nga fii ci àdduna la waaye la leen gaar ëllëg nag ci àllaaxira jëkkër ju baax jaag ab yonent laag wàlliyu laag nit ku baax la taxul nag ñu mën ko dara moo tax mu ne falam yughniya anhuma min allahi shay'an wa qila adxula annaara maa daaxilin nee na ñoo ñee nañ meloon ci suufu seen borom kër ya taxul nag ci ëllëg sa nuux wala yonent wala wala lóot li ñu doon doon ay yonent ñu mënal ko dara nag ci ëllëg kon ki def lu bon yow laayee ko biir sa kem kàttan te xam ne moom boppam lay defal ëllëg boroomam lay wuy ji ci bàmmeelam lay nekk suñ koy laaj ak suñ koy mbugal ak suñ ko def yooyu yépp mbirum boppam la waaye fii ci àdduna nag sa responsabilité mooy laayee ko biir ak jéem koo jubbanti sa kem kàttan bu jubbanti ko baax na bu jubbanti ko wut loola sa jaan wàcc na mu des nag doom yi doom yi su fekkee ne dañoo toll ci jàng nañ leen yóbbu ci daara ñu dem jàngi nañ leen yóbbu ci daara ñu dem jàngi su fekkee ne kàttan nga mate na ko yóbbu ko ci internat boo xam ne dañuy boole di jàngale alquranul karim ak boole ko di jàngale ab xam-xam boole ko ak di yar di def nit ki ci siraatul mustaqim defar ay jikkoom wutal ko ay compétence ba bu ëllëgee mu tekki dara seetal daara ju mel noonu nga dugal ko fa bul naagu mukk ndax nit ñi nit ñi bari na ko jubbanti ko te fekk tàmbalee gu tàmbalee woo ca woon boo xoolee la weesu ci sa dund da ngay gis ne lu bari ci nit ñi tàmbalee wuñu woon ci jubbantiku jàngaluñu leen sax yaruñu leen woon sax ci ak jubbantiku waaye borom bi tabaraka wa taala baaxe na leen ñu màgg tegu ci siraatul mustaqim kon rafetal njortu ci ne doom yooyu même buñ yar woon ci seen loxo yu yaay sax te dem jàngi góorgóorlu ëllëg borom bi tabaraka wa taala mën na leen baaxe ñu jubbantiku bay jubbanti seen yaay sax wallahu taala alam baarakallahu fikum cheikhana wa jazakum allahu xeyran kii nag Dakar la woote ci rajo bi wax dëgg yàlla waxe sax àgg na ca ba presque ay jooyu xol jóge ci moom xëy na loolu moo taxit ñu ni rek nan la ko gaaral ndax àq la mu ni daal moom dafa xamul woon docteur Mohamed Ahmed Lo ba tax mu toppoon ma riirandoo yi ci réseaux sociaux yi lu ci nekk mu wax ko ci jëmale ko ci sa der wala mu jëf ko mu ne nag mi ngi lay jéggalu te yàlla tax di ñaan borom bi subhanahu wa taala nga jéggal ko ndax lum xamul woon la fattu te yàlla subhanahu wa taala dimbali ko ci alhamdulilah mbokk moomu di jéggalu leen ciy wax rek ay waat yu néew a néew la baat bu njëkk bi mooy jéggal nañ ko njéggal gu rafet di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu jéggal ko ñaareel bi mooy dénk sunu bopp di dénk mboolem mbokki jullit yi ak mboolem mbokki déglukat yi ñu rafetal xol yi ak jikko yi rafetal itam làmmiñ yi ndax wax bari na lu yàqu te fekk moo ko yàq gannaaw loolu itam ñu xam ne réseaux sociaux yi nga xam ne moo am ci sunu jamono te amul woon lu ci baree bari dafa yees ci nit ñi xamuñu ci lan lañ ko war a jëfandikoo lu am njariñ am ci ñoo xam ne guddi ak bëccëg yàq rek lañ ci nekk di ko jëfandikoo ñooñu ñu ngi leen di dénk di dénk suñu bopp ragal yàlla te xam ne nit ki amut lenn lu muy wax lu dul dana ko layal fa kanam boroomam te it nit ki mën naa wax kàddu mu lor ko fii ci àdduna lor ko ëllëg yal na yàlla def jàmm wallahu taala alam baarakallahu fikum cheikhana wa waffaqakum lima fihi alxayr wassalah kii nee na dana am imaam bu leen doon jiite mu fàtte toog toogaay bu njëkk bi toogaayu taaya bi ba jukk nee na naka lay defare julli alhamdulilah su fekkee ne imaam day dafa jóg ba taxaw te taayawul taaya ju jëkk la fa sës rek mooy maamoom ya nañu jóg ànd ak moom taxaw su ko defee su jullee ba ak julleem jeex mu daal di sujjóot qabla salaam ndax dafa wàññi noona lay defari julli ga wallahu aalam baarakallahu fikum cheikhana jazakum allahu xayran kii dafay laaj mu ni li yàlla ni julli daf lay dàqal ay ñaawteef ak ki mbonte mu ni ndax loolu julli farata rek la wala naafila da ciy duggaale alhamdulilah waxi sunu borom tabaraka wa taala ji mu ne inna salaata tanha an alfaxshaai walmunkar julli dafay dox diggante nit ki ak ay ñaawteef ak lu baaxul loola julli yépp la li am solo mooy julli gën a doon gu sell goo xam ne mel na na julli war a mel moo tax waxul ne inna salaatan waaye dafa ne inna salaata maanaam julli ga julli ga mooy gan mooy gi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom la jàngale la ko tàmbale ci yéene ja ba ca jëf ya yépp muy ponk yaag charte yaag ya ca war a nekk yépp ba keroog ngay sëlmal su fekkee ni julli googee noonee nga saxoo moom ba noppi saxoo ko ca waxtu wañ ko war a def su boobaa mooy julli gi ñu am yaakaar ci ne dana dox diggante nit ki ak ay ñaawteef wallahu taala alam waffaqakum allahu cheikhana wa baraka fikum kii sëriñ Mbàkke Njaay la di wootee ca Dakar nee na ki nga xam ni dafay sujjóot sujjóotu ku juum nee na ndax dafay taayawaat ñaareelu taaya wala bu sujjatee pare du taaya ndax tamit bu fekkee ni taaya na te wuru woon a taaya ndax maamum bi dina ko ci topp taaya wala déet alhamdulilah sujoodu sahwi bu fekkee ne danga taaya ba sëlmal wala taaya ba sujoot su fekkee ne sujoot bi qabla salaam la danga taaya ba sujoot wala mu nekk baxda salaam nga xam danga taaya ba sëlmal gannaaw boo defee sujootu sahw bi foofa taaya amaatu fa loolu mooy li gën a wér ci ngër yi ndax ab xadis dikkut bu wér boo xam ne day jàngale ne foofu dañ faa war a taaya kon boo sujootee ba siggee ci sa ñaareelu sujoot rek da ngay daal di sëlmal amaa nag bu fekkee ne dafa da koo def maanaam dafa sujoot ba noppi continuer di taayawaat ka nekkoon ca gannaawam di julli it mënta sëlmal nag bàyyi ko gannaaw faaw mu toog di ko xaar ba mu sëlmalaat mu door a sëlmal waaye foofa daal ala kulli xaal taaya moom amu fa wallahu aalam baarakallahu fiikum cheikhana kii dafay wax mu ni tudde nit ni ko mooy borom jamono ndax loolu day dugg ci bokkaale wala déet diw mooy borom jamono alhamdulilah jamono day bu fekkee ne mooy àdduna ak li ci biiram kooku sunu borom tabaraka wa taala rek moo ko moom mooy rabbu samawati wal ard léeg-léeg nag mu dénk nit ay yëf léeg-léeg mu dénk ko am réew ñu ne kii mooy borom réew mi léeg-léeg mu dénk ko ay dénkaane dekk buur nekk nangam am ay waxiin yoo xam ne mënees na koo wax tudde ko buur tudde ko njiit tudde ko yeneeni tur yoo xam ne luñ ko dénk moo tax ñi di ko tudde waaye jamono nag nga xam ne mooy àdduna ak li ci biiram kooku moom deesu ko askane doomu aadama sunu borom tabaraka wa taala rek moo ko moom wallahu aalam baarakallahu fiikum cheikhana wa jazakum allahu xayran kii dafay laaj mu ni ñaanu tam xarit bi ñuy def ndax lu wér la ci lislaam alhamdulilah xawma day lu mu jublu ci ñaanu tamxarit gi waaye lu ñuy tudde tamxarit ci boppam li ca lislaam xam daal ci gàttal moo di bisub ashura nga woor ko bis boobee daal nga woor ko kooku sunna la bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale leneen lu ñu fay def lu nekk nag dajewuma ak moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale ko te yàgg na noo wax ne xayrul hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li gën ci njàngale yi mooy njàngale mi yonente bi alayhi salaatu wasalaam te itam diine ji mënee su ci dolli lenn loo xam ne nekku fi woon ci jamono yi yonente bi alayhi salaatu wasalaam wallahu aalam waffaqakum allahu ya cheikhana wa jazakum allahu xayran kii nee na dana am imam boo xam ni buy jiite di jàng alquran fu mu war a wax ihdina danaan idina fu mu war a wax anamta day wax anamtu mu ni ndax dina dagan julli ci ginnaawam alhamdulilah xam naa imaam juy jànge noonu laaj ndax dana dagan julli ci ginnaawam laaj nan lañ war a mën a def ba xettali ko ba mu mën a jàng alquran ak it nan lañ war a mën a def ba jullit yi duñ jël ku mel noonu teg ko ci seen kanam mu doon imaam loolu mooy li gën a ñor ala kulli xaal su ñuy tànn imaam nañ tànn imaam joo xam ne ju mën a jàng alxuraan la ndax jàngeen wii mu wax ci boppam loola luy yàq ak julli la rawatina su fekkee ne ci biir fatihatul kitaab ci lañ koy jànge kon nañuy tànn imaam ju man su fekkee ne yàlla dogal na dëkk ba ay jàngkati alxuraan nekk fa ba kañ tane lañ tànn ba noppi taxut mu mën a jàng njàngum alxuraan nañ ko dimbali jàppale ko ba mu mën a jàng alxuraan moom ci boppam itam bu mu bu mu diislu na déglu fépp fu mu dégg ñu ne am na fa séminaire boo xam ne fu ñuy préparer ay imaam la di leen dimbali di defar seen capacité ba ñu mën a nekk ay imaam na gaaw jii ma dem bokki ca loola su gisul lu mel noonu te gis ne am na ci dëkk bi sax wala ci beneenu dëkk ndaw loo xam ne yàlla baaxee na ko ba jàng na alxuraan man koo tajwid man koo jàng njàngin wu wér woo xam ne araf wu nekk dana génne fa mu war a génne na dem seeti ndaw loolee sukk fi kanamam mu jàngal ko faatixa ba man ko jàngal ko lenn ci ay saar ba man ko mu door a dellusiwaat door a nekk imaam jàngin woowu ma ne day yàq ak julli képp koo xam ne mi ngi koy jullee na xam ne ak julleem baaxut ndax day soppi maanaam alquran al karim boo waxee ni ihdina loolu leneen nga wax lu bokkut ak yàlla na nga nu gindi anamtu boo ko waxee xéewal nga dellootoo ko ci yàlla waaye yow ci sa bopp yow yaa ko delloosi ci sa bopp kon loola lu yàq ak julli la wallahu aalam baarakallahu fiikum cheikhana wa jazakum allahu xayran kii nee na dafay laaj cheikhana docteur Mouhamed Ahmed Lo ndax dagan na nit ku baax ku sell ko yaakaar ni mi ngi tegu ci alxuraan ak sunna nga ni ko dama bëgg nga ñaanal ma yàlla samay soxla mu faj ko mu ni ndax loolu dagan na ci sharia su fekkee ni dagan na nee na mi ngi lay ñaanta yàlla tax nga ñaanal ko yàlla subhanahu wa taala yombal ay mbiram wa jazakum allahu xayran alhamdulilah bokk na ci xeeti tawassul yi nga xam ne chariatul islaam da ko daganal mooy sàkku ñaan ci nit koo xam ne rafet nga jortu ci moom kon mbokk moomee noo ngi ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu yombal ay mbiram te yombal sunuy mbir yombal mbiri mboolem sunu mbokk yi nga xam ne ñooy déglu wallahu taala alam jazakum allahu xayran cheikhana wa baraka allahu fiikum ci tonti yu leer yi te xam-xamee di ñaan yàlla subhana wa taala mu barkeel la barkeel sa xam-xam barkeel sa njaboot yàlla subhaanahu wa taala defal leen tawfiq ak taysir mébét bi nga am yéene bi nga am ci biir toolu lislaam ak liggéeyal ko lislaam yàlla na la ko yàlla subhana wa taala yombalal yombalal ko bépp jullit boo xam ne yéene boobu la am yàlla defal ñu bu ñu faatoo ñun ñëpp ñu bokk dugg àjjana bi xeyri xisaabin wala adab wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu Écoutez les radios Fatwa 104.6
أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
jataayu fatwa fii ci rajo leeral fm 104.6 dañ leen koy dégtal àllarba ju nekk juróom-ñeenti waxtu ci ngoon muy 21 heures ñi ci ànd ak boroom xam-xam bu ñu ràññee ci àdduna sépp di docteur Mouhammad Ahmad Lo xafidahullah bul rusa laaj sa diine borom bi tabaraka wa taala ne فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون jataayu fatwa ak docteur Mouhammad Ahmad Lo di tontu ci seeni laaj yu jëm ci seen wàllu diine nooy def ba yónnee sa laaj ñu tontu ko àllarba ju ne juróom-ñeenti waxtu ci ngoon wooteel ci numéro bii 77 396 42 42 77 396 42 42 da nga dégg message bi.
asalaamaaleykum yegg si nga ci boîte bi ñu jagleel fatawa ci leeral fm mën ngaa bàyyi sa laaj te déglu tontu bi àllarba bu nekk bu juróom-ñeenti waxtu jotee si guddi gannaaw xibaaru juróom-ñeenti waxtu yi en direct fii ci leeral fm jataayu fatwa dinañ leen ko bamtulal ajjuma june fukki waxtu ci ngoon maanaam 22 heures وعندي عمر يكفيني ده نشرت دعاء